pour l'instant, ko euh, en tout cas ay ñu ngi koy euh, mais euh, pour parrainage le coup est déjà parti buñu ko mëne wax tay lan mo wara réponse opposition bi coalition constance fa la ne ba mhm. ñu non amatul tasna non la charte dit que local and député à la présidentielle. Chacun est libre d'être candidat. Le candidat le mieux placé. deuxième tour ñun ñëpp duñu am choix ñu jàppale ko suñu yàlla nattu woon nag par extraordinaire am na benn réunion sax bu ñu def boo xam ni doyen Habib si da ko souligné au cas où nag ñu ne benn candidat la am na maanaam ci premier tour bi nii comme que moom objectif am mooy waa yeewi buñ bokk juróom-benn nag rëcc nañ ba dugg nañ yow yaa liir liste bi léegi.

dafa flagrant woon ci Karim flagrant woon ci Khalifa flagrant ci Ousmane Sonko flagrant ci député yi flagrant ci local yi xam nga mbir mi chaine la boo xam ni dama foog ne sénégalais duñ ciy bàyyi xel xam nga gars yi Macky Sall yi rek lañ koy bàyyi xel voté na te amul carte fu mujjee. fenn voté wul kuy voté yow te indiwoo sa carte gaa yi xool la ne la est-ce que yow la sigil moom da koo def. étant ministre. ministre de l'intérieur. yoroon carte d'identité mais xam naa daa xëy gars yi wër ba sonn préparé wul vote bi ci guddi gi man moom <laughs> veyu vote ci laay préparé sama bagage yi balaa nga yeewu fii doo gis bagage yi xam naa fa la ko nattu bi dalee mu yeewu rek gisul dara mais daf ne damay voté te moo doon defar carte d'identité mu voté. <coughs> Guèye élection locale yi passé dafa am ay gox yoo xam ne sax ñoom. ñoo def exprès liste yi bañ a jàll notre liste à pikin jàllul il fallait nijaay nekkaat maire waaye la leen sutural mooy ce petit journaliste là comme que moom lañ ma doon wooyee ci kii kii mënul gagné yàlla mënul dogal lii c'est impossible kii mënul gagné kii parce que kii mooy kii kii mooy rekku kii mais yàlla mooy joxe nguur à Sam Notaire et à Golf dañ ne liste yi warul jàll ñu dindi ñu toog fa ne dañuy taal préfecture bi coow lekk trois jours ñu ne ñu dem leen ngeen defaraat seen liste yi déggoo ma de même local même local ñoom dañuy xool côté yoo xam ni fii war na jàll wala warul jàll ñu dem député <laughs> ñu ne suñu list titulaire yi du jàll le chaos suñu punkal yëpp tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi excepté day Aïdara ñëpp nga ne ñii duñ doon député waaye ñañ tuddee woon ay remplaçant sax bu kilifa yi ñëwoon ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Maïmouna so xëj na mooy gën a sedd parce que gone yee lañu nekkee assemblée ñii buñ fa nekkoon débat d'idées bi naam am na de mais yéeg ca taabal yi di tourner du fa am. dëgg loolu dëgg ñu ñëw ci présidentielles yi présidentielles yi Macky Sall ñaari mbir la ci am lu ko naqari benn moom bëggoon na ñëwaat troisième candidature bi la volonté populaire incarnée nag par des candidats te Ousmane Sonko mënoo ko cee génne Bougane carton rouge mënoo ko cee génne. Mimi dernièrement bi mu génnee combat bi yëpp fa la ko teg ñoom gàkkoog gars yi ñëpp ñëw. mais dafa am ñoo xam ni dañu taxaw ñoo ñooñu loolu mu leen dencaloon ak ñoo xam ne tamit ay sondage fii lañ ko fekk ak ay njàngat kii bu demee doo gani mu ne ñii duñu bokk présidentiel lu diw du bokk local diw du bokk député diw du bokk ñun ci Macky lañ ko xame te Macky nag. moom président tolloon na foofu benn instant waaye waxtaan moo ko indi moom li li muy wax mais waxtaan nag waru nekk foo xam ni euh, maanaam waxtaanu euh, ñii ñooy dégg ñee duñ dégg te ñii ñooy war dégg ak ñee duñ dégg nag yeewi dañ ci nekk victime réew mi dafa am fu mu toll woon Macky sàll ba nga bi nekk ci mbedd mi fi la doon tok ci radio bi diko wax ne len seigne Muntaxa fek bang ba ca mbedd ma indi ko ne ko fatul fi nga ne da sedd waye bu ñaanee nit ñi nit ñi dañuy bax parce que dañoo am ñi lu ñu yare mm-hmm. réew mi dañoo am ciosan am culture am kilifa waye yow nak mëno kula ñaan nga lak ne dé taxaw sa position rek ne man duma bax Macky Sall du kuy bay Nous avons des formes. nous au niveau des collectivités territoriales nous affaire yi amul forme je vous donne l'exemple de Guédiawaye des biens le patrimoine de la ville les responsables qui parti am na j'ai écrit au préfet au commissaire au ministre Nous dem fait fa ay nit collectivités territoriales nous avons pour nous faire ko problèmes là. Nous, nous toog fa lànk ba tëdd ci patrimoine comme immeuble bi tax bi tay ñu né li ville de Guédiaway moko mom. ngay dem diko jëli mbir mi jur xex. Ken soutenir l'administration centrale l'exemple du BRT fa la juddoo fa lañ défé pose première pierre fa lañ défé à ma grande surprise on m'envoie des cartons pour me dire que la cérémonie se passera à la place de la nation et non chez toi Ahmed dinañ fi jaar ak bus wër rond bi ak Macky sal mais ndaje Ndakaaru la waaye bu tey doon démb fa lay amee waat maanaam forme boobu ngay wax ne léeg-léeg sax ñu xaw a ñu xaw a peinture xaw waaw xaw a def sa yëfu nandite mais ay seer lañ non dëgg la yenn saay sax ngay kii xam nga ba pare ah, ah. xaw a dugal ben pion. wa wa xaw a xaw xaw sax def lu mm. euh, vraiment ñu ne vraiment ñi ay républicain lañ. maslaa quoi. waaw def ci forme dal ñu ne ça c'est la république. moy lima lay expliquer légui ñu peinture ko bi fa am waaw bi fa Amadou Ba ñewé ak Mansour fay ak Antoine diom fekkoon ñu mais boobu nekkagul candidat. étant le premier magistrat de la ville man ma leen accueillir def de mots de bienvenue ñu paré di continuer man ma ñibbi. dalal naa leen balaa ñu naan daa boycotté ñu dem mais bi mu dellu see bërki démb di inauguré ay maison de la femme ci ville bi la bokk de mais boobu il est devenu candidat politique baag ma gis seen page Facebook yeeg tableau yi ak ay ku nekk nga defoon nag say pancarte taxaw di xaar ne xëy na bu punkal bi ñëw ñu yuuxu ko ma bàyyi leen nag samay adjoint ca ñoom lañ bokk. ñoo inauguré ñëw jox ma sama caabi ma teg BRT bi ginnaaw suba dana dikk man républicain laa na wàcc. bu fa wàccee ma taxaw takk sama écharpe buñ demee ba kaas ba fa géejawaay ma dëpp <laughs> fii lañ ko war a xewee lañ ko defee pause première pierre fa la juddoo fa la màggee ñu koy ngénte ñu gàdd ngénte la doom ja daw ak moom Dakar <laughs> très bien lu may wàññi daf may teree doon maire <laughs> te ñun nag dañuy rafetal tadaratul bi organisé deux mois après notre élection Aliou Sall était là-bas. Mhm. Barthélemy Diaz était là-bas Mato, nous ñu ne kenn nay le maire de la ville. Mhm. quand ils m'ont donné le micro Abdou Fattah ma ne que sama dalal gani. man gan la, damay doog a J'ai je l'ai donné à Aliou L'île <laughs> le Sénégal xam moi rafetal rafetal dal, mu rafetal gis nga ay affaire élection yii yëpp day jeex bientôt rek ñi ñu fal nii demande de l'autre côté mais nous sommes des quatre. mais nous avons c'est c'est inhumain. <laughs> alors. parrainage euh, mon général. <laughs> même nous ils ont dit qu'ils ont eu 4 millions de parrains xam nga Nous doomu un million parce que le résultat est passé l'opposition réunie la wax million 70 000 mille et la boole les man ay man ci ay chiffres là dox ak élection yi passé lay jël man fa exemple ñom ils ont eu un million cinq ci tapalé département ñu dañ ko gagné yépp yépp ñoo gagné ñun ñoo gagné gagné Louga gagné sédju yu ci bari ñu tok na ñom ñoko gagné jaay ñu nangu député ils sont minoritaires à l'Assemblée mais nous def nous. def Nous mais rafet Si ne déggee pas non c'est-à-dire dit, xam nga Macky a organisé une présidentielle sans le Parti socialiste le père. des partis. bien sûr une élection présidentielle dans ce pays sans le parti de Senghor, déjà, sans le parti socialiste, comment me démentir 2019 PS 2019, Khalifa ne woon day arrêté, Tamba ils ont organisé une présidentielle sans le parti démocratique sénégalais kooku lépp lu mu defaat ci élection du bett kenn fi may daanelee nag moom mooy non déglu déglu déglu ma daaneel rek déglu non li ñëw après la ñëw li ñëw après la ñëw mais bañ ca tolloo débat bii la may mun a busoo doon wax man moom ci laa doon wax ñoom ñëpp ils ont été victimes dañ leen doon défendre après nag la xew-xew comme que moom paaka la yor te ko sa boli loolu dinaa ci ñëw léegi ñu ñëw ci affaire u détermination sénégalais bi ñuy wax ci local yi ne gars yi ñu ngi def ay transfert d'électeurs ni duñu len gañe man seigne Saliou fenn rek la ko téye affaire yi amul neexal ñun am nañ métier duñu ay politiciens professionnels si on perd on retourne à la radio fa lañ di liggéey 15 ans añ reer ndekki fa lañ yor suñu kër amuñ benn pression waa Géejawaay nag ñoom ñooy tànn ñoom mënuñu def transfert d'électeur ba indi fi ay nit yu ëpp waa Géejawaay dëgg loolu dëgg boo leen jàppee ne yéen vous voulez la continuité vous votez pour pour lui boo leen jàppee une da bëgg rupture kooku tam ci yéen la dépendre sénégalais yi bis bu ñu taxawee sénégalais yi dañoo taxaw de ñii gëy mënuñ gañe te waruñu sénégalais ne hmm. ñoom mën nañ parce que 2019 fi la togon ci plateau fi jour bi ñuy joxe résultat yi Touré xawma kan kan bennoo tok fi mais sot ma sot yo xamante ni nañ animer émission ba kérok sax man neexuma man amee ay dara duñ la bàyyi nga wax toog ca di la bëgg a rey résultat yi Macky mënul gagné premier tour ca jamono mhm. bi bii nag moom deux mille bii wuy ma. Ah, wuy ma non non dama expliqué la rek dama ne. waaw non dama ne dama ne. ñoom waa APR ci boppam ñoom waa APR ci boppam la fa ci ay doomu aadama ay ay punkal yoo xamante ni nii. du ñu woteel waa ji rek kenn xamul nu mu toll mais man waxuma sax loolu moom APR la. Uh-huh. mais le sénégalais wala les sénégalais Macky Sall gis nga ñii ngay dégg ñu naan moom la ñu préparé yëpp yëpp bëgguma tur seen tur quoi parce que man bëgguma tilimal victoire u jàmbur. jàll nañ parrainage nañ dem dëkk bii ku weddi laajal deux mille deux mille wala nga ñëw deux mille douze bi passé sénégalais yi dofuñu y a une grande différence entre électeur ak militant. très militants yi gey mhm. ñin ñoñuy top buñu génné ñu né way yéwi gaay sen cortège bari na dé def 2000 personnes ci rue wu geedja way 2000 2500 3000 est ce que mat nako ñi ñu doon top nonu buñuy campagne résultat yi génn ñin ñu am 47000 voix ñi la top pendant 21 jours yépp du dépasser 2000 voire 3000 personnes mhm. ñu né say militants lañ ñoo la top mhm. toutes les coalitions cette masse là ñooñu ñooy électeurs yi les fidèles foo jëm ñu topp la foo nekk ñu ànd ak yow tew dégg-dégg mais les électeurs ñu ngi toog ci kër yi di xaar bis bu rafet. Oh, quarante sept mille voix. ño te ñoom xam nañ loolu mënuñu muusa ka mu tër bi muusa ka mu tër bi ba lijjanti deuxième tour bi. Eh man man je parle même pas du premier tour moom dañuy xool ba xam moom dina am vingt cinq pour cent wala dina am vingt pour cent ndax dana bokk ci ñay déedéet deuxième tour Amadou Ba loolu la ñuy xool. on parce que Guèye mii moog Amadou Ba bokkoon. xam ne mënoo gagné sa bureau. gañe au sa centre. Ah. Uh-huh. gañe au sa commune parcelle. Ah, gañe sa département. bir kërëm bir kërëm mën na fa. dégg nga yow nga bëgg ñoo gëmlo nañu yow mën nga premier tour wala deuxième tour. Uh-huh. alors euh, Guèye fofu sax lay lay laa lay interpeller laataa may wat ci Mohamed. tay xép bi ngeen di xép Amadou Ba est-ce que naru len jural surprise. ok kenn souvent ñu dégg na Amadou Ba dafa massa gagner parcelle yi fa am yëpp déedéet Amadou Ba daawul gagner ñi ñoo daan gagner ñun élection suñu quatre quatre yëpp si la doon yàqu parce que ñoo doon jàpp militant yi gëmoon ko du ñoom parce que liggéey ñu lu tax ñuy gagné c' est des gens qui sont des milliardaires lañ mais ñu dara commune bi du tàngal mante fes boo xam ne defal nañ ko askan wi xam nga kay lay ñëw bu élection jotee li lay wax da koy wax